xamee nga ràññee nga pur xamee nga ràññee nga pur xamee nga nga ràññee nga pur man la Assane Seye secrétaire général de la fédération départementale de Dagana di jiital si nuyooyu nag suñu kan yi nga xamante ni ñoo fi ñëw euh, ci turu suñu euh, président parti di Seyid Mouhamadoul mustafa si euh, te ki nga xamante ni moom la jiital ci liggéeyu parti boobu noonu du ñu suñu secrétaire général national Cheikh Tidiane mu nekk ci yoon bi am benn empêchement mais boobu ba léegi ñoo ngi coordonné à ce que mu ñëw le plus rapidement possible pour doon teewee lii mais dañuy wax ni àddina jaam xasam yàlla ak dogalam mais ñi fi ñëw gis nañ ni représente nañ ko dignement donc di teg ci nuyooyu suñu responsable suñuy père yi nga xamante ni depuis ci suba ba léegi ñoo ngi fi à l'occurrence góor gi Abdou Pen nga xamante ne ak yaramam fu mu toll déplacé wu na depuis Diokhor ñëw ba fii pour fekkee mbir mi te ñoo ngi si buñ ci jógee aussi tamit ñu remercier suñu femmes yi nga xamante ni ñoom ñoo porté liggéey bi tey muy mouvement des femmes pures di jiital ci nuyoo bi suñu président parti Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha si nga suis le secrétaire général national Cheikh Ahmed tijane nous également ñi nga les honorables députés euh, yi nga xamantene ñoo PUR Aminata Dieng mi ngi nii di jigéen taxaw ci muy Masata ak ñi nga Mansour Kébé kon ak délégation biñu andal yépp ñun dañu ñu won sax duñu jëlat cadeau ginaaw biñu ñu fele ci biir dispensaire bi ba paré mais on tenait vraiment à remercier tout le monde euh ñi leen di sédel né jigen ñi depuis 8h ñi ngi fi légui nak jigen ñi ñoko porter don de sang bi waye dañ ci and ak ñëpp parti pur yépp suñuy papa les seigneurs, ñi ngi mais on tient vraiment à remercier tout le WALO, mais également remercier tout le département de Dagana itam les départements de Podor les départements le département de Saint-Louis et Matam ils se sont joints à nous pour nous appeler pour nous bi mëna don de sang bi dañ ko porté ñun ragaluñ ci c'est comme buñ la waxoon rek comme dox jëm 24 la ñu jëm ñu jëmmaal wan leen ne rek ñun pare nañu ku pare pare nañu ku pare wul it pare nañu te li ñu bëgg mooy fexe ba liggéey li ñu wax mooy am Pastef li ñu bëgg mooy li suñu président bëgg te mooy 2024 pur dem ci élection yi gagné ko à cent pour cent. ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk fii ci jotaay bi. mais jotaay bu ñu mënti dem dafa am ku ñuy tàggu mais bu ñu ñëwee moom lañ fiy fekkaat muy suñu président ca Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu suñu seniors yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk di nuyu mouvement des femmes bi nga xam ne moom lañ fi fekk suñu nuyoo soxna Aïssatou mu yóbbaale ñu ci des ñëpp nuyu également la jeunesse pure le secrétaire national du mouvement de la jeunesse pure de Babacar Lo bi ñuy la jeunesse pure ni lañ fa parce que dama nekk ci yenen empêchement donc nous ñi fi fekk ñep le secrétaire général national de Cheikh Ahmed Tidiane Youm dafa empêché mon activité bo xamni ci la démon ci mais téréwul mu ngi ci yoon bi bi ñu egsee fii woon na di laaj ndax yegsi nañu di wax ni moom ci bi incha allah balaa ñuy dinañu fi fekk ñu également la présidente des élus de la conférence des élus de madame Maimouna Sow moom itam bi ñu nekkee ci biir hôpital bi woowaan pour xool ndax yegsi nañ ci jàmm xool ndax tout se passe bien moom itam mu ngi leen di yóbbante ay nuyoowam di leen ziar bu baax baax indi ci département bi ginnaw bi ñu ñëwee ci don de sang bi xam nga don de sang waxuma la limu mëna sauver ci ay vie mais vie yi muy sauver dama leen di laaj ndax vie wu parti de l'unité et de rassemblement rek lay sauver déedéet est-ce que vie wu waa Dagana wala wa Richard kessé la mëna sauver mën na sauver ño xam sax dañ leen transféré beneen hôpital indi leen fi pour ñu mën cee faju motax yeen li ngeen def tabax na réew li ngeen def defar na àdduna moo don de sang dafa nek acte bu noble bo xamni da fay confirmer suñu slogan les valeurs au service de la nation lol nak du ay wax kese dañ koy jëf moo ñu ngi len ci jaajeufal bu baax buñu ñu ci rencontre bi dañoo wara dem rencontrer les élus rencontre des élus lan moko sabab mom moy part de l'unité et du rassemblement dafa ñëwoon ci askan bi ni len ñi ño len tànn pour ñu représenter len ci mairie

su len leen seetee xol ndax lañu len fa tegee ñong koy def su dee ñoo koy def ngeen len fañu ñu sen tank buñu ko téggi su dee defuñu ko ngeen leen yéen lii ngeen def su dee lu manké ñu échanger d'expérience échanger de compétences, ba mu permettre luñu wara def ñu def ko dox jëm 2024 ñenti élément ñokoy doxal élément bu njëkk bi c'est un candidat pur dañoo dajé. ñu waxtaan suñu biir ni parti yépp ku ne da ngay toj sa bopp morom pour ni may candidat ñun pur defuñu loolu ñun kenn moo ñu doy muy suñu président parti ñun ñëpp d'accord nañ ni mooy suñu candidat kon xanaa du pur amna na candidat candidat boobu du mat na candidat kon candidat moom ñun romb nañ ko ñaareelu élément bi moom mooy caution parce que booy dem ci élection da ngay participer wax naa ni léegi jigéen ñi ñoom ñoo ni ñoom ñooy jël caution bi en charge caution boobu bu matul itam defe naa ni li ci des bëreewul yaa ngi nii toog caution boobu mat na ñoom kay nee na waxatuñu sax waxu caution waxu lan la ñuy teg suñu loxo pour ñu dem campagne ko ak bu ñu jëlee nguur gi sax lan la ñuy démarrer suñu programme yi ñoom ci loolu lañ nekk kon caution bi mat na ñaareelu élément bi kon nag romb nañ ko mu ngi ginnaaw ñetteelu élément bi tax ñu dem ci élection mom moy programme PUR bind na programme bu mucc ayib le 17 bi ñu génn ci mois de juillet bi ak le 18 le 19 lañu démon feulé ci joxor ci ben bërëb bu ne fofu ñu tëju fa terminer programme bi ak ay expert ñu waxtané ko càmbar ko ba mu mat sëkk ñu bind ko ba mu yegg ñu jël ko jébbal ko suñu président ku leen laaj programme

ci discipline bi mu am ak ci solidarité bi mu am ñuy magnifier wat ci solidarité encore une fois au président du PASTEF le président Ousmane Sonko nga xamni suñu allié bu sincère la xam nga Ousmane Sonko man dama and ak mom ak Cheikh Tidiane Youm ak délégation di leen ñu def le tour du Sénégal ñu ñëw ba buntu kër Serigne Moustapha mu wax baat bo xamni doyna na mu ne pure mooy le seul parti bi nga xam ne di nga ànd ak moom te doo gestu sa gannaaw ndax xam nga ne du la trahir kon dañuy dox jëm 2024 ñu ngi suñuy tournée ñu ngi seeti suñuy élu ñu ngi seeti ay nit ñoo xam ni yaakaar nañ ne ñu ak ñoom bokk nañu jubluwaay pour ñu mën a ànd dem ci élection 2024 yi fi may jeexale mooy fii ak 2024 xam leen ni provocation lay doon sur provocation provocation sur provocation am ñoo xam tane dañ leena yabal am ñoo xam tane dañ leena yew. yeewu am ñoo xam ne dañoo xamul fu ñuy teg seen tànk provocation sur provocation waaye olof yi ñooy wax ni mbottu nawet yi ngoox yépp ku leen nar a tàccu sa tool booy nañ leen bàyyi ñu nekk ay mbotti nawet di goox ñun ñu dox jëm 2024 parce que dafa am fu ñu bëgg a dugg te foofu wax du ba dugal nit defe naa li ma bëgg wax xam ngeen ko kon nag déglu suñu président kàddu yi mu ñu war a wax dina ko wax suñu secrétaire général mu jottali ñu ko ñu jox ko suñu responsable yi su ko defee ñun ñu jublu ci li nga xam ne moom mooy suñu farata ndax mille 2024 wax na ko léegi de ñun ñu de xam nga dox la ñu wax wax ñu doxantu wax ñu daw dox jëm 2024 te ku dox nag am na foo jëm waaye jarul loox ba ngoonu 2024 incha allah ñu jël suñu président mii suñu candidat ànd ak moom ni ko nag la Serigne Cheikh ni réew mi seen loxo lay mujj réew maa ngi nii téel di nuyu waa podoor di nuyu waa Richard tool di nuyu waa Saint-Louis waaye nag nuyoo bi ñu ngi ciy jiital ñi nga xamante ne ñoom ñoo jigéen ñi ñi organiser don de sang bi waaye itam ki nga xamante ne moo waral jataay bi mooy sunu kilifa di sunu président parti Serigne Moustapha c'est Al Maktoum yàlla na fay Benen bi ñu ci ki nga parti Cheikh Ahmed Tidiane Youm And ak ñi nga honorable député yi di parti PUR amna yakar bu reuy ci wa nord parce que dañu japp né nord sunu gox la muy Richard Toll Dagana Saint-Louis ak Podor di wax itam né kérok bis sunu président du parti di wax ne dañuy dem élection législative dafa wax né objectif bi 2024 motax 2024 rendez-vous pur la. Tula maa ngi leen di nuyu di leen sante di la gërëm waye ma jël nuyoo bi nak di ko ci loxo suñu président Serigne Moustapha Sy ki nga xam ne amuñu ku mom diko ñaanal yalla gudd fan ak wér yaram ndax dundam am na njëriñ diko wax ne ko si malik amuñu kenn ku yow su du yow kon nenen lay démé waye yalla, mi nga xam mo moo tégal ñuko fi suñu kanam. ñu koy xool wax deug yalla ñu sopp ko lol si motax may lancer message ñi nga xamne dañ nan pure parti daayira la mané dedet ndax si malik ñëpp la yemalé man ma ngi ni bokuma ci daayira bi té tay ma ngi ni falu yalla nga dogal tey suma ma député grâce à Serigne Moustapha Sy mané nañu bayyi yak ki day dem Serigne Moustapha ken du côté day dem mon président l'espoir de toute une nation mom ya rewmi la ya askan bi yaakaaru Sénégal waye yaakaaru nak Europe yépp di nuyu wa diaspora bu baax waye suma ma Serigne Moustapha Sy ba paré manki tek ki nga xamné mom lañu la muy Cheikh amadou Tidiane yum di secrétaire national bu parti waye buma bu Cheikh amadou Tidiane yum ba paré maa ngi ciy teg ki nga présidente nationale des femmes di soxna honorable Oulimata Guiro mi ngi fi yebal ki nga xam ne moo massification di soxna Aji Faye Mangi nuyu bu baax délégation bi nga xam ne moo Dakar ñu ràññee ci bu baax honorable député Mamadou Niang Ragné ci bu baax honorable député Mansour Kébé di nuyu bu baax Pape Diagne mi nga xam mo yor communication

te macha allah yéen ku leen xool xam ne jigéenu sëriñ Moustapha si yii macha allah sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha amul como fii pire como amu fi te como juddu fi te como du fi ñëw pire à la baadolo como juddu fi di nuyu bu baax euh, Moussa Yàgg di ko wax nag mu joxoon ma nuyoo bi ñëpp nag di jégalu bu baax di leen wax ne message bi ma leen di wax mooy ñu taxaw takku ndax xam ne ni jigéen ci lu mu jiitu rek lépp sotti moo tax sëriñ Moustapha dayee bu jox jigéen jox ko kenn li mu wax ci jigéen kenn dootu ko wax di leen wax ne macha allah tey seen don de sang bi réussite totale la am li ngeen def dootu fi am di leen sant di leen gërëm di leen ñaax ci taxawaay bi di leen wax ne tey macha allah jigéen ñi ku xool vert blanc nga xam ne sëriñ Moustapha rek moo xam ndax vert blanc mooy paix ku ne xam ne vert mooy nawet te bu nawet amul dara du dox moo tax ma ni parti pur ah doo nit mënu tabax deuk deuk bu amul justice dedans. dox ku xool xam ne tey bi dara doxul ndax amul justice deuk su amul solidarité dara du dox deuk bu amul développement du dox motax si malik mom dafa xam li slogan xam li réew mi dafa dégg motax tax mu ne parti de l'unité et du rassemblement rassemblement boko waxe moy mbolo mooy ñu ne parti pur parti de l'unité et du rassemblement justice développement solidarité boko amul dekk du taxaw motax tax mu créer sama parti anda ak ñima wara war ak dox jëm 2024 kon jaarama Serigne Moustapha nit su amul savoir vivre du meuna defer nipsu nit su amul savoir faire du meuna defer nipsu nit su amul savoir être du meuna taxaw kon si malik lolu message bobu lañu lancer won motax man mi nga xamne chaque jour ñu ne kii Serigne Moustapha le gem maa ko ndax dama ka comprendre xam fi mu jëm teel a xam fi mu jëmee askanam fonk Sénégal moo tax man ak pur rek pur tey suba ngoon jërë ngeen jëf ci wax ji bu dëngee ci man la salaamaaleykum wa rahmatullah xame nga ràññee nga pur xame nga ràññee nga pur est-ce que xame